ami téléspectateur de leeral TV et de Leral point net amati nañu mbégte ak contentement euh, ba tey rek ñu ngi fii nga xamante ni moo di Kër Moussa nekk ci vingt deux kilomètres de Thiès tey naka ñu wàcc fii war a waxtaan ak ñoom ci seenu dundin ana naka la ñuy dundee jamono ji ci wàll bu nekk nag waaye nag bi la yoon dañ koy dooree rek ak li nga xamante ni jafe-jafe yu ñu koy dund bokk na ci seenu titre foncier lu toll ci ay hectares hectares yi nga xamante ni rek jël nañ ko jagleel ko ñi nga xamante ni ñoo di tubaab yi ay at nag ñu topp ci di daw loolee nag mooy doon suñu reportage fii ci Kër Moussa dañu leen koy dégtal léegi léegi. Papa ba mu mel ni fii ci Kër musa da ngeen am euh, jafe-jafe ci lu wàllum euh, titre foncier mën nga dikk ak ñun problème bi euh, naka la commencé ak nu mu tëddee jamono ji. waaw fii si Kër musa day doon commune boo xam ne dafa nekk si région de Thiès suuf si nag dafa am loo xam ne dañu ñëw fekk ko fi mu daté 1889 booba ñun amaguñu moomaguñ sax sunu bopp si temps wu nooteelu tubaab yi la woon fa la su suuf si coow li fa la tàmbalee ba nëgër ni nag léegi li nga xam ne mooy dëkk bi ak li nga xam ne mooy tool yi ak fi nga xam ne moom la sàmm yi am lépp daal dañu ñëw fekk ñu ne dafa am ku ko moom euh, ñi ko moom nag depuis 1889 noonu ma ko tuddee dafa amoon benn conseil juridique tubaab bu fi ñëwoon fii si Sénégal bi mu ñëwee nag mu ni dafa soxla foo xam ne dafay liggéey bi mu ñëwee fekk fi si waxtu woowa fi ñu naa kotaan dafa am laman boo xam ne moo fa nekkoon mu tuddoon Njañ Siis boobu nag bi Léon Verdier egsee si moom daf ko ne dama soxla suuf waaye moom nag daf ko woon li mu soxla si ni ñu ko bindee si kayit yi mu nekk si biir sambam fii ñu naa grand séminaire euh, mu ni daf ko soxla kooku ne ko du ma jaay mu bàyyi fa keesu sàngara boo xam ne ñaar fukki dërëm la doon jar si waxtu woowu bi mu ko fa bàyyi ñëwaat fekk ñu naan ko mu ni day fayu ñu rey nag fees ko natt ko muy 900 mètres carrés 900 mètres carrés yi mu si biir sambam gii ñuy wax grand séminaire ba tey 900 mètres carrés yooyu nag moom moo dox di dox di dox ba ñu léegi nekk 900 hectares 900 hectares yooyu nag kooku di Léon Verdier jox na kuñ naag Kodiak Kodiak jox ko Philippe Philippe jox ko François Climette François Climette boobu nag moo nekkoon Sébikotane si usine de fabrique de briques. bi mu amee coow ak inspecteur euh, régional boobu kam presque du Cap-Vert la ñuy wax mu am problème ak inspecteur bi kooku nekk dangay ngay nit ñi ñi fi am fukki at yëpp da nga leen di embaucher moom mu nekk ak problème ak euh, inspecteur bi inspecteur bi nekk képp ku fi am fukki at daal di nga ko embaucher mu nekk problème ak moom mu daw nag génn Sénégal dem Maroc 1946 1949 mu gaañoo fa par accident d' avion. bi mu gaañoo 1951 benn doomu euh, jabar ji mu fi amoon amoon mu fekkoon kaak doom mu adopté ko muy François Vacheron Clément ñooñu nag 1951 ñu ni dañuy jaay suuf si dem si notaire ne dañ koy jaay waaye amuñu këyit sa 900 hectares yooyu biñ koy jaay daal amul lenn loo xam ne leer na si ndax am na 201 hectares yoo xam ne mu ngi dem si euh, vicariat apostolique bu bii nekk Sébikotane ñëwaat ba. kër sœur yi nekk Kër Moussa bande boobu di doon neuf cent un moom ñu ni bokk na sa njaay ma yeneen sept cent hectares yi nga xam ne nag dañ ne fiir fiir lañ ko jaay yooyu moo moo boole buñ ko boolee di sax dina ëpp neuf cent hectares mais nag diggante Sébikotane fa mu ne ba Kër Moussa def na juróom benn kilomètre te yaatuwaay bi amul fenn foo xam ne néew na fi un kilomètre ak genn wàll genn lépp ëpp na donc sax 900 hectares yi ñuy wax sax dinañ ko ëpp ndax Sébikotane ba Kër Moussa di mën a 600 hectares boo ko calculer boole ko dina ëpp 900 hectares léegi nag amuñu fu ñu béy amuñu fu ñu dëkk moom teg na si loxo te si biir kayit yi ndax dafa am ñaari titre foncier yoo xam ne moom la ñu filfili moom la moon muy 1637 1637 boobu si biir kayit yi dañu ne mooy usine de Faidherbe ak cinq hectares yi ko wër loolu lañ si bind. beneen 1655 R bi nag bi ñu ne moom la Fulfulde am te mu mat 700 hectare boobu dañu ne lii nga xam ne mu ngi jóge si moomeelu l'ancienne gare de Sébikotane ak kër yi ñu ko dëkkee ak li ko wër te loolu manul ne ndax titre foncier boo xam ne état moo ko moom mënula demee noonu si un un privé un particulier jekki-jekki rek nekk si ay këyit manul ne donc cinquante cinq R boobu lu ñu jar di oo ñun di ko dox ndax depuis 1956 boobu nga xam ne Filfili nee na moom moom suuf si am na sunu ñaari maam yoo xam ne nekkoon nañu fi kenn ki ñu doon ko wax Njañ kenn di ko wax Muur Faal xeex nañ si jóg nañ si ñàkk si doole sunu mag ñi nga xam ne it ñu ngi fi woon 1989 Filfili dafa porte plainte képp koo xam ne yaa ngi si suuf si muy béykat muy sàmm muy kuy dëkk mu porte le plainte léegi nag buur jóg nit ñi jog fippu mu doon coow lu rëy si tund bi ñu amee ñu nommé Henri Grégoire comme juge d'instruction kooku du instruire dossier bi de 89 à 92 manul am benn conclusion lu dul un non-lieu non-lieu 92 boobu nag fii fi li reculer xam ne kii kat moom li mu doon xëccu mënu si am dara mu toog 2004 noppalu ko ba 2004 mu ñëwaat si suuf si nag ne léegi man aw may kayit amu leen kayit waaye ku ma jaay ma jënd noonu la naxe ay mag ba cent 193 personnes jox fexe na ba jël seeni tool nu mu ko jëlee day natt bu nattee ba ba dajale mu nekk ba at moomu 2005 ñu ngi juboon tabaski mu des ayu bés ayu bés boobu nag mu jël kaaram di yëpp nit ñi di yóbbu fa la ñu naa bët foofu nag la leen jo doon joxe ay ndàmpaay ndax moom dana woon day jënd waaye mujjul jënd dafa ñëw rek ku nekk sa tur di xool li nga am rek mu daal di bind ne la lii jox donc amul benn weccee amul benn jënd boo xam ne jaar na si yoon ñun nag li nañu jóg euh, defoon nañu benn collectif di xeex deux mille quinze ba deux mille vingt beneen euh, takku jógaat nekk si xale yi muy ànd defar Kër Moussa ne nag dañuy jël relève bi si cellule boobu. waaye bi ñu demee xam nañu ne loolu foog ñu ànd ak cellule bi ànd ko di xeex looloo waral sunu toogaay ànd ak euh, xale yi nga xam ne ñooy defar Kër Moussa pour mën a xeex li nga xam ne moo dem si suuf si ndax euh, suuf si dëkk buñ ko wax suuf a tax ndax amu kenn mënul ne un peuple sans terroir un peuple boo ne peuple rek day am terroir day am foo xam ne dëkkuwaay baa tax te ñàkk nañ ko ngir ñaar ñooñu vicariat ñaar ñooñu ñu ngi dund ba léegi ñaar mooy vicariat apostolique mooy labbe yi ñoom ñoo ne am nañu fi deux cent un hectares Filfili c'est la famille Filfili ki nga xam ne moo ko moo doon origine bi moom gaañu ne moo doon Nadre Filfili doomam sax Habib màgget na ba léegi sët yi ñoo fi ne Munir Filfili ñoo fi ne accaparé wu suuf si yëpp ñoom ñu ngi fii jamono ji ñoom waa ñu ngi Dakar ñu ngi Dakar waaye ñu ngi liggéey ñu ngi si suuf si léegi yéen la li tax ngeen di eh, xëccoo suuf si mooy da ngeen amatul espace bu ngeen defee seenub liggéey. waa ñun amatuñu fu ñu béy ndax amuñu fu ñu béy amuñu fu ñu sàmm amuñu fu ñu dëkk lépp loo xam ne espace la woon lu boo fa ñëwee dañ naa ñoom ñoo ko moom kii eh, eh, grand séminaire kii la famille Filfili accord léegi si say kàddu mu mel ni moom euh, dañoo weccee suuf rek dafa profité ci période tabaski bi xam ne kilifa yi soxla nañ xaalis mu jox leen ndàmpaay ñu weccee suuf mais amul benn këyit buy firndeel ni ñoom ñoo moom suuf si. waa ndax ndax amul benn acte boo xam ne autorité locale joxe na ko amul benn acte boo xam ne autorité administrative joxe na ko yëpp. dañuy ñëw rek gis directement ñu bind benn texte ne daa titre foncier bi diwoo ko moom. léegi foofu espace boobu tabax nañ ko def ci benn kër wala ay usine wala ay lan lañ eh, tabax bi kër a ngi si usine a ngi si sàmmkaay a ngi fi lépp a fi mm. ndax 900 euh, hectares lu nekk xaj na si biir. lu nekk xaj na ci kay léegi nag dem ngeen si yoon yéeg wàcc wala waxtaan ngeen ceeg autorités yi ñoom lan lañ leen wax. waaw ñun xaj na. ñu ngi si bu baax ak autorité yi ndax amul autorité bu yégul li nga xam ne moo xew si suuf si ndax li dale si exécutif si le président de la république ba jëm si ministre yi wàccati ñëw ba si maire yi ñëpp a yëg li xew fii si tund Kër Moussa manque kenn ki kenn ñàkku see xam xam-xam ndax fu ne dem nañ fa ñaxtu nañu taxawu nañu def nañu lu ne ah mu mel ni yéen ay doomu réew mi ngeente ñoom bokkuñu ci réew mi ndax da ngeen jàpp ni ñoom dañoo bedd seeni doomu réew faral ñi ci biti ah waaw loolu lay mën na niru de ndax bu ñu nee koo xam ne doxandéem la ñoo ëppal fi ñi fi dëkk waxuma la ëppal sax waaye dañu aakimoo ndax lépp ñoom ñoo ko loo wax dañu ne ñoo ko moom fi kër yi nekk ak fi ñuy sàmmeek lépp dañu ne ñoo ko moom mu ngoo ko ami téléspectateur li moo nekkoon seen grand reportage bi ñu leen indiloon fii ci Kër Moussa ñoo ko déggandoo ñoom nag seenub suuf la ñuy jooy ci ay at mën nañ ni boobu yàgg na ba léegi ñu ngi topp seen ginnaaw waaye nag li ñu mën a jàpp rek mooy état du Sénégal ñoom nag dañoo taxaw rek seetlu wala sax ñoom ci seen kàddu dafay nduroog ni dañoo favoriser waa biti réew bàyyi leen ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yelloo suuf si war ci liggéey te sax nag boobule suuf nag indil na leen gàllankoor ndaxte mënoon nañ ci def bay mënoon nañ ci def seen élevage ak yeneen ak yeneen xeetu liggéey ba tax na naka la ñuy sàkku rek mooy état du Sénégal ñu taxawaat seetlu ñëwaat ci seen problème bi ngeen ñu trouver ci solution jërë ngeen jëf ami téléspectateur di leen jox nag dig daje ba tey ci biir euh, Kër Moussa ci yeneen reportage waaye itamit ci beneen sujet